Sénégal. alors euh, Gomis euh, je sais que actuellement euh, yaa ngi wax mais sa xel yëpp mi ngi dem ci jongante bi actuellement xam naa ne képp koo xam ne sénégalais nga nekk foofu ca Qatar sa xel dalul muy joueur yeeg tout le monde ah, ah parce que nag ñëpp xam nañ ne victoire rek moom mun a tax ñu bajo a suñuy bagage alors comment sa se prépare actuellement foofu nga xam ne foofu ngeen nekk di waajal jongante bi. waaw dëgg la euh, euh, bu euh, nekk nii li li li la tubaab bi wax béyee daar dégg nga béyee maanaam bu subaa maanaam jongante am match bi nga xam ne moom mooy am diggante Sénégal ak Équateur kii nag xam nañu enjeu bi xam nañu xam nañu nag léegi nag li des moom mooy lan la ñuy mooy ki ñu njëkk a xaar mooy Aliou Cissé lan la ñuy indil euh, ci li nga xam ne euh, moom mooy euh, onze de départ bi loolu la ñëpp kii ku ci nekk mu ngi ak dinaan diw dinaan nele parce que laaj nañ ko ko tey jii ci conférence de presse ñu ne ko mais Aliou léegi rek ndax da ngay maanaam booy yi booy yi nga dugaloon contre Qatar ndax ñooñu ngay Euh, ou bien da ngay delluwaat ak ñii nga xam ne euh, euh, ñoo maanaam ñoo yàgg ci équipe bi moom nee na onze bi fii la koy waxee ci conférence de presse bi na ko wax bañ na kowa wax mais li nga xam ne naka la équipe am naka joué tamit bu conférence de presse bi la koy waxee bon loolu rek dañ ko koy nangul dañ ko koy nangul parce que moom moo am. loolu ci euh, kiyam la loolu moom mooy euh, li mu moom nit ki li mu moom dafa koy delloo waaye nag bu subaa di euh, Sénégalais yi moom moom mooy am équipe bu baax am équipe bu taxaw loolu lañ kay xaare Aliou Cissé tey ji wax bi benn la nee na gagné waaw nee na équipe mën na gagné mën na gagné ci foofu Euh, entraînement bi tey c'était à huis clos xamuñu euh, lan moo fa am waaye ci ay dégg-dégg euh, ci maanaam xibaar yu moom mooy que Aliou Cissé ba maanaam boobu nga xam ne maanaam équipe bi nga xam ne moom la kii woon moom la démarré ak ay attaquant ci kaw mhm. ci lay démarré ci euh, information parce que sax am na benn onze euh, de départ bu feeñ boo xam ne ñu ngi koy euh, ñun ñii journalistes yi xool nañ ko mun naa onze de départ bu probable mais ñun ñëpp dañoo jàpp ne loolu lay indi mooy maanaam bool bi épargne bi de gauche à droite Sabali ak Jacob Euh, ci kii bi ak accès bi euh, Abdou ak ki nga xam ne euh, moom mooy capitaine bi di Kalidou Koulibaly milieu bi Gana la ak Nampalys et que léegi nag Krépin Diatta day nekk sen kanam Krépin Diatta day nekk sen kanam côté bi Elimane Ndiaye beneen côté bi ki nga xam ne moom Ismaïla Sarr moom la ci euh, avançant Boulaye Dia damay préciser waat loolu mu ngi circuler fii au niveau du Qatar à Doha ñëw na ci journaliste bi am na sax xam ne sax ñu ngi koy commencé bu dee loolu la bon yéen ñi ci plateau bi ngeen xool euh, composition boobu su dee moom la indi mais nag euh, du loo xam ne vraiment lu am la c'est pas d'accord officiel mais daal la ñu jàngat Euh, ci euh, li nga xam ne euh, moom la mais nag leneen beneen xibaar may indi loolu c' en dehors de l' équipe nationale du Sénégal mooy que démb maa ngi ko doon dund maa ngi mooy li nga xam ne moom mooy mobilisation bi ñu ngi mobiliser tous les Sénégalais Sénégalais yu nekk fii yëpp dañoo jàpp ne képp kuy Sénégalais danañ la jox billet nga ñëw nga dugg ci stade waaw. Euh, mobilisation boobu le ministère des sports ak fédération euh, jàpp c'est wax ñëpp parce que li amoon na premier match deuxième match sénégalais yi nekk fii ak yi nga xam ne dañoo jugee France wala jugee ci yenn dëkk yi ñëwoon amuñu billet dégg nga mais ñoo ñëpp euh, ministre bi nee na ñoom ñëpp utal nañ leen billet dañu dem stade en tout daal loolu moo amagum comme loolu moo amagum xanaa may xaar ay question mais loolu moo amagum. alors euh, euh, dara est-ce que am nga question pour Gomis. Euh, conférence de presse bu Aliou Cissé noo noo jàngatee comportement parce que contre Qatar ñu ngi doon xool ni il était un peu tendu ci conférence de presse bi bii par là la tra di ñëw lan nga nan nga gisee comportement Aliou Cissé bi mu ñëwee conférence de presse ndax ku ku détendu la ku nekk en forme la pour aborder match suba. waaw oh, dëgg la euh, Aliou Cissé euh, wuute na ak Kane euh, pour dire vrai bon man sama gis wuute na ak Kane Kane ba il était c'était quelqu'un qui était confiant il était confiant à la Kane day taxaw di wax di discuter ak journaliste mais bii pas Aliou Cissé bu njëkk bale la gisaat mooy maanaam de xaw Euh, Aliou Cissé c'est vrai bu ñëwee dina nuyu ñu mu war a nuyu tooñ ñu mu war a tooñ dégg nga euh, ba pare ñoo toog mais euh, kanam bi bokkul ak boobu c'est vrai peut-être mun na nekk Fatick mun na nekk tamit leneen mais kanam bi nekk na koo xam ne daal je ne je ne je ne gisuma ci kanamam confiant honnêtement loolu man maa koy wax loolu loolu man sama gis-gis. da nga ko xool nii et puis en conférence de presse Aliou Cissé est toujours en défense euh, il est toujours à la défensive boo ko posé question automatiquement <laughs> là <laughs> là moom mooy euh, noo def la rek mais c'est contre bi lay c'est à la défensive kon loolu laa jàngee ci Aliou Cissé euh, ci conférence de presse ak tamit ci temps yi yëpp passé boo ko gisee li mu mel. ok c'est bon alors. alors euh, Cheikh Tidiane yaakaar naa ne euh, fi mu toll nii xam naa dañu lay dañu lay bàyyi ah euh, ndax am nga élément yoo ñu yónnee dinañ ko dinañ ko dugal léegi yow ñu libéré la parce que xam nañ ne actuellement sonn nga foofu métti na te aussi yaa ngi ci préparation match bi te aussi guddi na. waaw <laughs> la voilà dëkk baa ngi nag moom mooy maanaam kii benn xale rek. Mhm. fi ñuy joué suba xoolal xaw ma ndax ñii bu ñu mënoon tuubee sama ginnaaw. da ngeen di xool sama ginnaaw gis nga. waaw gis nga am na fuy tàkk nii ci ginnaaw. waaw euh, stade bi foofu la de. stade bi mën nga ko dox ñun journaliste yi fi ñu nekk. Mhm. ak stade ko dox dem ci stade ba kon nga xam ne mu ngi nii ci ginnaaw fii la stade bi nekk. Mhm. foofu la ñuy joué moom mooy bu wax leen ne rek. Euh, ñoom nag euh, Lions yi il faut dégg nga Lions yi il faut les yokk nga ñëw nii. waaw lion yi ñoom fi ñu dëkk mooy riyaan yii yoon bii ngay jël nii moom ngay dem euh, boo ko defee à dix minutes euh, dix minutes léegi nag foofu la lion yi euh, dëkk dégg nga ñoom foofu lañ nekk ci benn moom maanaam fédération handball bu ak Qatar foofu la ñu logé kon da xam ne ñoom sorewuñu ak stade bi wute nag yeneen ñaari stade yi ñu euh, yeneen ñaari match yi ñu tëwoon euh, fële euh, dégg nga Toumama kooku dafa sore. Hmm. mais bii tey jii suba fii la ñuy joué sore na aw nii rek dem noonu dox ndànk dem ci stade kon nag mu ngi noonu nga li mooy dëkk bi dëkk baa ngi nii bon mu ngi noonu daal. jërëjëf Cheikh Tidiane Ndingo bi cant ak ñeel na la demal tu te reposes nga reposé wu bu baax a baax waajal eh, jongante suba bi xam naa ne dina métti et eh, eh, vraiment merci beaucoup pour le boulot merci beaucoup pour le travail yow ak ki nga xam ne moom mooy di Pape Modou Faye ak ki nga xam ne mooy Lamine Dour yéen ngeen nekk ay envoyé spécial bu groupe Walfadjri on est très fiers de vous parce que yéen a ngi def liggéey boo xam ne liggéey bu am solo am solo la et à incha allah Gomis jërëjëf merci à demain avec la victoire. merci beaucoup. jërëjëf jërëjëf alors merci beaucoup Cheikh Tidiane Gomis <laughs> alors. Eh, eh, eh, dañuy commenter Cheikh Tidiane doog a dem ci ci ci ci ci élément yi ñu yónnee extrait Aliou Cissé yi parce que benn bi wax na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo di Équateur beneen bi wax na ci état wu ñi nga xam ne ñoo ñu état physique wu sunu gaynde yi ndax ñu dem wala ñu wër tuuti parce que man déggoo bi dafa am question bu ma ci am état physique après ñu ñëwaat ñu enchaîné après ñu tënk loolu alo alo alors alors donc euh, euh, René nañu dem ci Équateur d'abord ah avant ñuy ñëw ci état physique bi Équateur d'abord cadre euh, yi nga xam ne moom Aliou Cissé yëkkati na ko. On a un football intense qui demande beaucoup beaucoup d'énergie. Vous savez, dans un match de football, vous pouvez pas toujours avoir des, des temps forts. Il, il arrive parfois que vous ayez des, des, des temps faibles. Et justement, dans ces périodes-là, il faut être beaucoup plus organisé, être beaucoup plus serein, garder un peu plus notre bloc

c'est qu'il nous faudra davantage de concentration. On va allier les, les deux parce qu'on a une équipe aussi euh, avec des garçons qui ont cette euh, caractéristique que vous venez de, de citer. Mais le haut niveau aussi, c'est l'expérience, l'expérience des gros matchs, l'expérience des, des grands événements, l'expérience aussi des matchs décisifs, et ça aussi, nous l'avons. Je l'ai toujours dit, nous avons constitué une équipe euh, homogène, une équipe euh, qui allie expérience et jeunesse, mais tous demeurent des compétiteurs de haut niveau. Et demain, je sais que cette fibre-là, cet euh, ADN compétitif, euh, ils l'auront. alors alors dégg nañu Aliou Cissé ñu enchaîné ak beneen extrait bi doog a ñëwaat ci plateau bi euh, euh, Charles parce que mu nekk benn bloc boo xam ne dañ koy dañ koy dañ koy mën a waxtaanee ah su ko defee ñu doog a jàll ci El Tactico kon nañu dégluwaat beneen extrait euh, bi nga xam ne gars yi jëlee nañ ko ci waxtaan bi nga xam ne Aliou Cissé seq na ko ak taskatu xibaar yi. On a un football euh, intense qui demande beaucoup, beaucoup d'énergie. Vous savez, dans un match de football, vous pouvez pas toujours avoir des, des temps forts. Il, il, arrive parfois que vous ayez des, des, des temps faibles. Et justement, dans ces périodes-là, il faut être beaucoup plus organisé, être beaucoup plus serein, garder un peu plus notre bloc compact et laisser passer ces, temps faibles-là. Donc euh, oui, effectivement, par moment, on a des, temps faibles. Mais je gère bien cette, euh, cette pression. Pour moi, c'est une très bonne pression. Euh, nous travaillons tous les jours, euh, nous faisons ce métier-là. Les joueurs aujourd'hui ont travaillé pendant des années pour arriver à ce, à ce niveau-là. Maintenant, le niveau de cette compétition-là, nous savons que oui, gagner nous donnera l'opportunité de continuer l'aventure et nous avons, nous avons l'intention de continuer cette, cette aventure-là. perdre nous ramènerait à la maison. On n'a pas envie d'y penser. Le scénario est clair par rapport, par exemple, à 2018 où on savait qu'on pouvait avoir un point et que les calculs pouvaient être là, tandis que là, les choses sont claires. Nous allons vers un match très difficile, une équipe qui défend bien, une équipe très agressive, mais je crois que c'est notre quotidien en réalité depuis que 7 ans que je suis là. C'est euh, un match parmi tant d'autres Euh, en termes de pression, en termes de euh, d'adrénaline, mais je crois que le football de haut niveau, c'est ça et c'est ce que nous voulons aussi, c'est ce qui nous amène ici en réalité. On est préparé à tous les, tous les scénarios, mais on sait que la qualité première de cette équipe-là, c'est une équipe très, très, très physique. Euh, le défi physique, effectivement, sera, sera là. C'est une équipe qui est capable de défendre. C'est une équipe qui concède peu d'occasions, c'est une équipe qui concède peu de buts et qui se crée aussi dans les zones décisives, en réalité, beaucoup d'occasions. Beaucoup Donc euh, je pense que euh, les deux phases très importantes, les deux périodes, les deux moments, en réalité, endroits euh, difficiles où il faut qu'on soit présent, ça sera quand on va défendre dans notre surface de réparation parce que c'est une équipe qui est capable de marquer des buts et être euh, très décisif aussi sur les phases offensives. Donc euh, pour moi, tous les scénarios sont, sont envisageables. Effectivement, il leur faut un point. En début de ce match-là, ils l'ont déjà, ce point-là. Donc euh, c'est à nous de faire le nécessaire justement pour euh, faire bouger le match et essayer de marquer ce but-là qu'on qu désire tant. Souvent, dans ces matchs euh, décisifs, dans ces matchs importants, euh, l'enjeu l'emporte sur le, le, jeu. Donc euh, la meilleure façon de préparer ce match-là, en réalité, c'est de penser au jeu, Euh, préparer cette victoire-là, la première jusqu'à la 95e minute. Nous savons que nous avons le potentiel offensif aujourd'hui pour marquer n'importe comment, n'importe quand dans, cette, dans au voilà. Donc jouer, euh, jouer et encore jouer pour pouvoir justement nous donner les ay dara une question ah dégg nga waaw. Youssou Youssou laa bëgg laa ko bëgg a laajte mhm. eh, est-ce que gis doo gis sa bopp tuuti ci Aliou Cissé à chaque fois boo boo <laughs> buy def conférence de presse wala s'il s'adresse aux journalistes toujours mine serrée toujours avec euh, euh, le bi kii di wax ni toujours.